maa nga tudde woon Serigne Djili Niang kenn la Serigne Touba nga xam ne dama ko neew ab docteur nga boo xam ne xamoo docteur da ngaa war di accueillir malade bi xamoo am na malade yoo xam ne Serigne Djili Niang kenn la Serigne Touba. laa tuddee sama cant gi. xamoo kooku docteur laa ko tudde am amuñu naan docteur lu docteur docteur la. docteur day docteur bi waaw. yaa ngi dégg <laughs> xaw moom la docteur yoo xam ne ñooy rey malade yu bari. xamoo ko ñëw jàngoro di wax la nga ne ko. yéen baat docteur la dan lay opéré xaw ma dan lay opéré opéré garawut sax. mais am na ñoo koy wax rek ñu faatu. waaw mais bu ñëwee nga ne ah non lii lii la lii garawut lii góom bu ndaw la doon koy faj bu ko defee day daal di wér. sëriñ Jili nag noonu la ma def. bima yano yenoo cant gi mo la far la lëfar mo sabu di xonku tur ma wo adna be nga xam am pina sax man yakaru mo kon ci bis bi mu wo ma këram ni ma mbay fo dol cant ke ma tollu ma ci fan lepp baye na lako mono mën ma bu soobee suñu borom lepp dana bax ñu ànd dara mu jëral man nago woo bama ne ba ma ko yeewee daanaka toorkal la dégg nga maam ñëwati toog ca ga di teral gan ñi kooku fayam mang ko sant maa ngi koy gërëm marraine ba soxna moom i kebe sa bintaram jor sunu yaay sunu mooy ku baax ay sunu yaay ngoog lu mu <laughs> léeg-léeg nga def ko noonu yaay nga di ko mer te fekk la mu naan yaay moo ko yaay moomi kebe yaay gis paa bu sikki nga doon limaan yaay moomi nga di ko mere te fekk la mu naan yaay. moo ko xam moomi kebe kenn du moom moom itam. loolu moomi. kebe moom day jàmbaari Serigne Touba joxane néew kenn bu ma doon góor màggalu Touba moom nag boo ko bëggee dàkk. def lu ko neex hmm. xaara ba màggalu Tuubaa ñëw da ca def lépp di teral gan kuy ñibbi mu yewi la koñ ba mu dëkk kenn kon dana fa dugal ak ndaw moom day tànn ñu yewi ak ñu tànn tànn kooku xam kooku kooku déglu mais kooku sëñ Tuubaa tax muy def déglul kooku xamewut kenn moom sëñ Tuubaa la xam moom moom lu mu defal ni da koy bañ ba daan la sëriñ Tuubaa tax ma defal la ko moom xàmmewut yooyu moom sëñ Tuubaa tax muy jëf yàlla na fi yàgg te wér moom invité d'honneur ba déglul invité d'honneur ba Moustapha Dia laa defoon sama xarit sama doomu day tudd naa ko doom moo nekk 28 kooku ba may jàppale sa yii yëpp a xew xewut booba maa ngi Dakar di liggéey nga xam ne bu weer dee ku baax moo ma yoroon sama dépassé gi yëpp léegi nag sax am lu jàpp tox la ba dama koy fàtte fay waaye dara